seen produit cannelle vous a offert seen série Général in the House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 muy def nii. de si saa. waaw waaw nga xam nga lan la. place. Clément eh, eh. eh, sur la table. Je ne vous explique pas. Je ne vous explique. xam nga caaxaan. ma ma ma wa. léegi laa. la moo tax xamoo ko kam. waaw léegi yaa ngi tëj ci jawaar bi ñëwaar bu pare. la waaw damay taw kay damay toj. su ma waxee yëngal ndax du yëngal ndax. du ma yëngal ndax yaa ma yëngal loo kay. ma tëral laa. mun wax ngay bët sa bët di jooy di jaay. ana ngay xam. xam. yow. dama tëgg ba dër. ah xam nga na nu nga xam ne damaa jël def sama xarit moo tax loolu neex nga def si kër gi. nga bàyyi lu ngay def su ma la xëy bàyyi ba pare ma ma may dër. bu ma ma dësi saas bu ma dësi saas naa ko waaye yow tata baaw nga ni yow di ma mën a fen tata baaw nga ni yow dina ma indil ma ci kër gi ba pare indil ma ma indil ma dara. kaa kaa wax naa naa bali naa la ko indil man may wax tonton maa ngi toog ki. bul ñibbi bul doon bul ñibbi. maa ko ki moom na pour jënd sa ñaay taatay ay daal. Ah. su ma demee si moom man naa ko bu ma ñëw dina ma jox xaalis ma indaaleel. ah ko ki laa doon woo. maa ko ki du ma doon wax téléphone lépp xaw ma dara na ma joo. man nelaw naa kumba ko mbaa daan mbaay fëri mbay ma joojo laay laay mam nelaw naa da am mbëru mbaa daan mbaay nday mbay ma joojo laay laay la sëñ sene ah sëñ sene tuwaar kàlla bég nañ ci kontaan nañ ci yow lan la amoo rek <laughs> amoo rek amoo rek amoo rek amoo rek damaa gis Max xoosay départ te bu kenn dugalee ñëpp si ñu. waaw ngay baax mu wax rek. dëgg la la kontaan na lool waaye xam nga moo tudd honnêteté. waaw ci biir kër gi ma nga xam ne dama seen borom. lan la yow noppi ko ba tey. waaw ñaar noppi maam ne la naan maam maam yàlla na ma jaaree gaañ. waaw waaw waaw waaw waaw waaw te te laqal dara gis na tournée yëpp mi ngi ci yow. Eh, juddoo ci ah? eh, sàkku indisposé. eh eh ah. wuy ma waaw comme da ngeen ñëw si jàmm. Mhm. nan ko fanaandoo. waaw moo gën de. ndax man yéen ñi samay na la génn. walaay dëgg la bu ma toogee fii di jàppanteeg yéen ku dégg bëccëg subaa ngoon. Mhm. ngeen mën a bàyyi lépp ñëw fii di ma woyal. Mhm. ay gor génn. te dëkkandoo jàmm sa gën. walaay nugum nugum mi hmm. su ma bëggee naan kafe ci café ngee laay bëgg naan su ma wéetee mbaay cafta mii laay woo di waxtaan ak moom boobu dara doo doon loon mii dara hmm. kon tey bu yàlla dogale ma tabax kër gu mel nii hmm. mu ñëwaat ba sama biir kër ma léeku ne ah dama naan an bu yàgg dëgg la walaay dëgg la dëgg eh! moo tax ay ay nit bu nekkee réeroo di am danoo ñàkk waxtaan bu ñàkk waxtaan eh, eh, ñàkk waxtaan bu amee nag réeroo lay indi ay nit de bu réeroo day toog waxtaan pour trouver ma kii nu mu tudd. solution solution. yow très bien di nga kii de daa mel ni moom loo danoo ko loo loo ndox. kii na laal baax da maa kii rek. ah loo ko lijjanti loo lu la. waaw baax la <laughs> xaar defal naa nit kenn du dudd jàngoro. kii ndoxum si tee ko jàng. Ah, du kii waaye naa la boole Cheikh Baara Ndiaye sama. def gis ay waaw dina la jox mu ndoxum si di. boo ko boo ko jëfandikoo bu soobee yàlla wokk te géej yëpp ah, ah, dina dem ko dem. waaw waxaale ko man dama am ci bopp daa am lan mbaq ci bopp. nga xaale ko. ah sa mbaq day génn gàmm waaw waaw mbaq ci bopp. waaye duwul mbaq nga. waaw. waaw loolu day am loolu day am xam naa nag. yàlla yàlla da laa beral loxo daal. yow man waxumaa yow de. social la loolu la la génneel sa loxo ci mag muy dem. cafta cafta cafta. même kii la fa nga nekkoon rek. fi ma baax lool fi ma baax lool. kii sama jarbaan la te ku ko laal laal ma. dëgg la waajuram daf ko am moom képp mu woon kaa téye yaral ko bopp mu jox ma ko mu nekk man sama kër gi te yow yàlla xam ngeen mayu ma doom dëgg la macha allah waaw tey daal ginnaaw jàmm dafa am. dañuy waxtaan. dama lay nettali lu neex li ma fekk tey. tey laa ree général Bayram. yaa benn sàcc. Mhm. lan jàpp fii bu koo door imaam bi ne bala ñu door dóor bàyyi leen ma yedd ko. Mhm. imaam bi indi sàcc bi ci jàkka ji. dëj ko di ko yedd. ndax sàcc bi ndekete moom du sàcc xar du sàcc lu am personnalité. Mhm. li mu sàcc li bi ci gën a seer ñaar fukk lay jar. galaas lay sàcc galaas. marut ah. sàcc bi garaat lay sàcc buñ ko jàppee balañ koo door mën leen erreur la hmm. imaam bi ne ko rek léegi da ñuy la wax lu tax ngay sàcc glace hmm. te yow xanaa xamoo ni hmm. glace gi ngay sàcc mënoon ngaa lu ko gën ndax glace daa sér sàcc bi ni imaam bi damaa déglu Iran ndaw te sama soppe la mu daal ne yamal xiyaam bu ñu fa demee lu waaye mës a sàcc ci àdduna di nga koy yenuwaat ma xam ne foofa day tàng ma ne naay sàcc glace ak moom <laughs> sàcc bi dégg day bañ day bañ bu tàng bu tàng moo tànn ak naka reetaanal waay waaye lan la mbaal mbaal mbaal mbaal mbaal ma man su may reetaan xam su may man expression corporelle ak énergie bi su may reetaan damay tuuse waat baal ma baal ma baal ma kii maama wax dëgg yàlla waaw damaa mës a fekke lu garaw gis nga boo ñëwee ba buun waaw ci biir buun buun ci ruq bu xóot waaw nga jàll dem cokki pël génn fa dem awragin jaare bu ndox dëkk boobu fa nekk noonu maa fekke benn dof waaw mbir mu rëy mu ko dal a dof bi daal daa bëgg a tux hmm. maanaam mooy ñi nga xamante ni dañuy siig mu dem di wër di wër di wër ba dajale mego yi bari bi mu amee mego yi amut lu mu ko booyele dog bi di daw di daw di daw di daw ah, ba benn dëkk ah, for benn benn di dawaat ba beneen dëkk for xott amet mu tourné kookoo am jot am wërsëg ah, dégg nga jaral na ko naka la tourné mm. ci diggante bi rek ndekete wàcc wàcc gu sew googu mooy taw bi gu sew googu waaw oh. daal dina tooy megoye tooy saa daal daa ñëw jekk saay rek xool kaw xool gi rek naan xool tawul bàyyiwul di tooyal megoye <laughs> <laughs> tonton. illah illah. kii day dof boobu. tonton de wax dof dof la. ko wax lu mu wax noonu wax dof la di. tonton dama déglu dama wax waaw waaw. kii dafay fen. xoolal. Eh, eh, eh, ah xamadi. loolu kenn du ko xale ma sàmm morom moo tax nu bëgg ko yore. ah loolu kenn du ko wax. ah loolu kenn du ko wax loolu kenn du wax loolu. waaw waaw kii may wax nii maa maa ko fekk. yaa ngi dégg xool xam nga xam nga taaliyaam. taaliyaam waaw taaliyaam waaw. xam nga taaliyaam daal dañ. taaliyaam wala taaliyaam. taaliyaam saa anta. waaw daa yàlla mooy sa rakk baay ji tànn yaa eh, eh, ko xam ngeen lu mu bëgg wax. waaw xale boo nekkee moom wax yow yaa eggal lu xam moom daa dañ ko. waaw waaw yaa ma moo moo jàdd fi ci ginnaaw ci kuuj bu jàddalee. waaw waaw sa sërale waaw mu dégg foofu kër dëmm bu nekk foofu. Ah, eh? boobu ci ginnaaw. waaw dañ koy tooñ. waaw taal yaa ma ne xoolal dina dem fa xool ba xam ndax ay dëmm lañu wala duñu ay dëmm. waaw mu bàyyi ba heure bii rek mu yóot yow yow daa dem ba ci buntu kër gi rek xool mu yëndu rek ñu mar bët bi. mu wéy boo léebee yow mu léeb bu ree ñu ree. <laughs> waaw yow da ngay considéré yow da ngay considéré sa bopp comme li nga wax dëgg la. Ah. waaw. la ilaha illa xam nga ñun. yàlla dum na dunoo gëm ah, Serigne Serigne. ñun nit ku ñuul surtout Sénégal dafa gëm Serigne. Mm. Sénégalais daa ñeme seet ab seetlu. Uh-huh. Ah, ah dem dem Serigne ñu koy seetal. femme bi moom daa seetlu moom. facture courant moom daan nangoo seer lool ay cent mille ay deux cent mille oh. ay trois cent mille mu jaaxal ko lool te moom lu ko jaaxal mooy amul jëkkër mm. amul doom moom képp kër mu dem sëriñ bi nekk man sama facture courant kat day seer rek te damaa xamal la damaa bëgg nga xoolal ma sëriñ bi ne ñaari junni la mu jël ñaari junni jox sëñ bi pour mu xoolal ko lu xool la mooy yokk facture bi <laughs> sëriñ baa ëpp waaye a gis daa yëngal pétaay wa waaw daa am far bi jaay glace la yëgoo <laughs> far far bi jaay glace la yëgoo ko nga am jaay glace guddi gi day tàkk sa guddi gi la <laughs> waroo

na ngeen def. yow doo ma lebal benn fóon. tubaarkalla. maa ngi nii tax tubaarkalla <laughs> eh, eh, macha ah. allah. looy leb fóon ñu banque fóon bari na eh, lool. ñëpp bëgg fóon. cafta cafta cafta. kaay kaay kaay nii kaay. kii lu mu fi wut. kii nii xamee woo. déedéet. ñii ñoo bokk association euh, groupe te sa ndey man maa nekk seen résident. ah yow da association bu dudd. groupe te sa lépp avant nu may fal chef de quartier maa ko jiite. waaw est-ce que xam nga ni kii nii doo ànd ak dugg ci biir. Ah, ndax la waaw parce que damay tere loolu. Eh, yow général. waaw ah. jëndoo carte membre de boo si association bi de. damay doy carte membre. yow fii sama kër laa wax. Ah, dama ne la xale jigéen ñi nga xamante ni ñoom taxoo leen si fa tey yàlla su may man autorisation ñuy dugg si kër gi. kii a groupe ah Tessène Ndeye la. ñu def sa seen ñu Tessène Ndeye ñu toog fa. Eh. <laughs> dégg nga li ngay wax ni ah eh, fu ma ko de. waaw looy def léegi. waaye bii de ay dugg de. day dugg fan. ci biir la jëm yow sañ nga ànd ak ku jigéen ku dugg si néeg si nekk bi. ala ah, moo tax. xanaa ah. may fay waaye yow lii la la kon nag dinaa xam ne man maay borom kër gi wala cafta yow yaay borom kër gi maa ngi fii toog naa la gis nga ànd ak ku jigéen dugg si biir néeg bi maa ngi dugg si biir a <laughs> jël sama caabi ñëw <laughs> ànd ak booy bi yéeg ci kaw ah. ba xam loo ci man ah, sama yaa xaaral ma heure nga xam ne ku la mag Ndouga waaw nii nga def tey nag sama xol seet na si loolu. na xarit nga sama xarit nga waaw ndax fii ngay toog di jaay café mënoon nañoo dëkk si ay. <laughs> tey da kontaan naa. walaayee waaw comme nag da ngaa jaay. ma dem ci demal si liggéey bi demal si liggéey bi dina déggoo bu soobee yàlla. jërëjëf kontaan naa lool kontaan naa. naa la. wuy ma eh eh bàyyi nu ngay def bàyyi tooy kii sa papa la. yaa ngi doon jaay jooy léegi bal. sama xel daa génn si abu. demal si abu nga ne ko sama papa nijaay ne nga jox ma bal. su après mu fay jaar jox la. papay abu naana. kan papay kan abu. dama bëgg nga mel ni kii Sarr naa ba amis. papay abu naana. kan papay kan donc singam. salaamaaleykum waaleykum salaam. na nga def maa ngi fi fi. yaa ngi am jàmm bu baax. sant yàlla bi wér. ah man de dama laa miinul ci koñ bi. waaw man moom dama fi doogi ñëw ku bees laa sama tànk bariwul sax fii waaw moo tax di man de xam ne tatin bi mm. mosuma kaa gis si koñ bi na koñ ñoo fi gis ñëpp seen kanam yi dañuy mel ni ñeexu dama daa bu dog yow waaw ah cafta sa lan la cafta sama copain la lan waaw yéenewu la ko ma ne la yow doo doomi baa doola baa doola war laa yor ah yow góor da war a gis doob def si yow ay millions yu bari ndax jar nga ko ndax ba ma nee la jàkk gis xool la sama xel daa dem ba may créer sama bâtiment bi kiif kiif yaa ak moom fu mu toll nii sama bâtiment bi ba mu bees rek laa lay xoolee macha allah. da nga am loo may. waaw mooy ndax yàlla dafa maa may ñaari jabar. Mhm. ku ma si fanaanoon damay lamba lamba lamba sama mag mi jeex te duma la daj. ay waay kër gi. ay ndax da sew rucc. te yow mi macha allah. bu bu ma la yàlla dogal ba ma ne la coppet. takk la nga nekk sama ñetteel fu ma laam dinaa la daj ndax toolu nga ko. wuy ma ah ne alhamdulilah. alhamdulilah gis nga sa aajo. ah maa ko koy faj. sa sama yaakaar musta tas de boo di làmbati. Hmm. di nga daj lu nooy nepp. Ah. lu xes pecc. ndeysaan maa la wax loolu. pare nga pour ma jël la. waaye yow léegi de mooy sama problème. Ah. est-ce que nga ma. nu may séenee nii nag. est-ce que mën nga maa yor. xam nga hmm. cooy laay bañ ak xuloo ah. ndax gis nga man sama appartement ah. man damay fay chaque mois cinq cent mille courant bokku ci ndox bokku ci te gis nga sama jaaru bi ah. jaaru en or la te chaque deux semaines deux semaines laa koy changé parce que dafay faral di tooy moo tax day faral di tooy comprendre nga te man chaque semaine damay changé di def ay chambre à coucher yaa ma gën a xam mm-hmm. parfois nga doxantu ndànk marché jënd say ab yi xam nga waaw sañ say affaire yooyu noonu yaa ma gën a xam ah fu mu toll nii wax dëgg yàlla mm. yàkkanti naa ngaa nekk sama soxna ba ma commencé fanaan noonu yow jigéen da ngay bëgg lu baax ba nga naaw sama appartement bi dama koy fi xam nga ñaata laa yaakaar nga may wax ah. million nga ne ma cinq cent mille léegi nag ku la laajee ci sa appartement bi ñaata fay nekk un million ndax weer bu dee dinaa jox un million nga fay nee naa la dootoo manqué maquillage sañse mm. dootoo ko manqué lépp maay jënd jox ma sa numéro am man de kattan bu dëgëree rek ah. doole bi doo mer dinaa mën si ma poos. di dinaa la satisfaire si laal bi bu soobee yàlla. incha allah di nga am ah. jéeg bu mën daagu sa biir kër. bi mooy numéro bi bi mooy sama numéro. whatsapp jeex na jeex na envoyé ma léegi sa photo. waaw ma am lu ma si def envoyé la ko. Ah, ah. waaw. risque di wàllu dir yaa ngi ko dem day métti. foo ne mën na jigéen day gaaw a rey ndax jaal day beeta sa poos wóoru. ay waay hmm. kontaan naa si yow. ah xol sedd na. sama xol sedd na. kon maa ngi ñëw dem. yaa ngi dem après ñu communiquer rek. waaw maa ngi dem. ah. la ilaha illallah la ilaha ay yàlla kër ay ku ne moom dina dund am sa diriyan kay mel Safiyatu Safiyatu sa gat dagg na de ah oh, Safiyatu eh, eh, général ana booy bi ma ay woon bi doxaan naa ko mu def Safiyatu doxaan naa ko ba mu ñibbi ne ko nag gu génn gu génnul ko nag xamoo gone gi bu génn. waaw damaa bëgg nga ne ma gone gi bu génn nangam dina des fekk. danaa la ñuus ba nga. eh eh papa. ku tëyew. ku tëyew. ba jàpp ba jàpp ba jàpp. ku ñuus. matal taa di ma matal. seen produit cannelle vous a offert seen série général in the house. Cheikh Bara Ndiaye <laughs> borom def gis moom Cheikh Bara Ndiaye indi laa leen lu bees